am benn société bu ñuy woowee Dakar Intérim Sécurité muy liggéey ci wàllum sécurité gardiennage ak transfert de fonds ñoom ñu luwee kër gi depuis 1997 en 2014 ñu ñëw seet si borom kër gi ne ko ah daf nga fi ñaar fukki at ak lu tegu <coughs> et kër gi ni ñu ko gisee nii lu mu mel baaxul li ñu gënaloon moo ñu jël ko xool nu ñu koy defaraate mu nee ñu ah vraiment séq naa teraanga ak yéen jox leen ma rek délai ma dem ñu jox ko délai mu bàyyi ba délai bi di waaj a mu indi si ay jeexi jaat indi benn cabinet cabinet ñëw xool bâtiment bi ne bâtiment bi ah ñu mu mel ni baaxul te suñu ko bàyyiwee nii mun na daanu si kaw nit yi. ñu yóbbu bâtiment euh, document bi jox ko mairie ñu jël autorisation de démolir bi yóbbu ko préfecture fu nekk antuwul fenn. mur yi dafa xar mur yi dafa xar loolu moo ñu tiital ndax ak lu mënti am ëllëg. dañuy ne am ana borom kër li ñu bëgg rek mooy suñu njiit yi dañoo am yaakaar ci ñoom moo tax ñu leen di alerter